nappkat yi ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio i rajo ITV xam ngeen ne dem ba léegi sujet boobu la ñuy waxtaanee fu nekk rajo rajo boo ubbi télévision boo ubbi ak foo dem ci àdduna mooy ci France ci Sénégal fii moom la ñuy waxtaanee mooy raaya bi xamante ne sénégalais bi tudd Mohamed Bougar. Sarr am na ko te muy prix Goncourt prix boobu nag bokk na ci prix gën a rëy ci prix xamante ni bindkat di ko def ci àdduna mu génne benn téere jox ko maanaam prix boobu te lu ci gën a maanaam am solo eh, co-éditeur bi ay sénégalais lañu kii di Felwine Sarr di Boubacar Boris Diop ak Nafi ñoom seen maison d'édition Yamsen bokk na ci édité livre boobu loolu am benn impact bu rëy ñu nga ak docteur Massamba. Guèye kenn du ko président Sénégal critique littéraire enseignant chercheur directeur Kër Leyti docteur raay bi kii di am euh, Mbok mbogaar ban maanaam réflexion lañu mun def à chaud ci li mu am lii. Euh, maa ngi lay gërëm Alassane di nuyu auditeur ak ñiy seetaan euh, ITV ak waa iRadio di wax ne sant yàlla ndax bu nu amee doomu Sénégal boo xam ne fii la jàngee jàng ci école publique jaar Britannique militaire Euh, am raaya bi nga xam ne moom ba muy jàng daan jàng ay ay écrivains yu ko am. Euh, ñi nga xam ne euh, ñooñu dañu defe ne woon na du leen mas a gis ci àddunaam defe naa ne tey ndam la ndax def naa turu Sénégal liñ ko tudd démb ci média fu mu ci àdduna bi def naa ne bu Sénégal doon fay pour communication di fay pour publicité pour turam àgg foofu pour ñu mu nekk ay une journaux def naa ne duñ ko mën a duñ am budget bi kon tey nekk na benn doomu Sénégal boo xam ne ndam bi mu am euh, ci mbind la ci xel la euh, fa ñuy joŋante mu amee ko nag ci réew moo xam ne ba mu fiy ñëw dinu noot daf ne woon ñun amuñu aada amuñu xam-xam matuñu sax ay nit euh, am ko ci jamono boo xam ne ba tey ci stade àdduna bi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jël ay yuuxu golo di ko jëmale ci ay footballeur yoo xam ne der bu ñuul lan am di wane ne duñu ay nit bu nu demee kon ci wàllu xel ci wàllu xeltu ci wàllu fent ba doomu Sénégal bu am euh, fanweeri at benn euh, te bii du ndamam bu njëkk am ndam lu toll nii euh, génnee fii di doomu jurbel di doomu Dakar di doomu Sénégal di doomu Prytanée militaire loolu ndam la waaye nag jeexital bi mooy rek. ne lu fa jiw jugul jeexu fa te fa ndox daan taa ba léegi boo demee fekk fa tepp tepp. bu ñu ko ci Sénégal ci xale yi léegi gis nañu maanaam li mel ni jàng. Euh, école euh, farlu euh, Bougar nekk xale bu ndaw nangoo jàng papam nee na moom bu mu nekkee xale daana jouer Scrabble loolu bokkoon na ci li ko gën a formé te bëgg a liir bëgg jàng ñu am jamono jamono bees bi xamante ne xale yi léegi ju si gën a bëri maanaam faraata lu ñu jàng est-ce que lii mën a nekk benn impact ci xale yi waaw mën na am jeexital ci xale yi mën na am impact ci xale yi ndax ku mel ne Bougar tey bon yàlla dogal na ne xam naa ko yàlla dogal na ne damay jëflante ak moom ci at a yàlla dogal na ne day ñëw sama kër day ñëw di ma seet bu génne téere bu ñëwee ba Sénégal dina ma ko indil ba jox ma ko loxo ak loxo dem yóbbu ko kër lay dugal ko ci bibliothèque bi. xam naa ko bu baax àndoon naa ak moom jeu de la francophonie ñu yaakaaroon sax booba ne dina am médaille d'or bi waaye bis bu may bu may waxtaan ak écrivain yi ci euh, euh, fi nga xam ne moom la ñuy tase ci ci ci festival wala muy biennale de littérature yi ñoom ñëpp liñ may njëkk a wax mooy leen jaaxal ci Bougar mooy culture littéraire culture générale maanaam Bougar day lire. Bugaar euh, auteur yi euh, livre bi ko jox prix sax boo ko xoolee auteur bi nga xam ne moom lay jël def ko personage inspiré ci histoire mu Yamb Oleguem ñun bi ñuy nekk ci lycée ak collège di jàngale dañ ko doon jàngale muy devoir de violence nga xam ne 1968 la amoon prix Renaudot Bugaar mi ngi juddu 90. auteur bi nga xam ne moom la inspiré wu ñu ko doon xeex di ko attaqué ndax ni mu doon attaqué système colonial di Yamb Oleguem mi ngi am prix Renaudot 1968. kon xam nga kooku xale bu gëstu la bu am xam-xam ba mën a jël ci xam-xamam boobu ba mën a bind liñ ci mën a jàngee mooy lépp lu nit euh, jiital ci àdduna bi te du xam-xam ndam lam cay am ndamul koom lay doon waaye du doon ndam loo xam ne daf koy jëmmal jëmmal ay mbokkam kon war nañu gën a jël modèle bu mel ne Bugaar donte at yii yëpp man mën naa seede ne juróomi at a ngi nii yoo xam ne Bugaar toogul fu ne tase naa fa ak moom ci àdduna bi muy dem ci ay école di séddoo ak xale yi li nga xam ne moom mooy xam-xamam mais xam nga euh, Alassane lu jar a jàpp. Mm-hmm. mooy Bougar euh, Bougar bii ñuy wax ni Bougar bi Bougar. Mm-hmm. Mouhamed Bougar Sarr li ñu war a jàpp mooy li ko formé dëgg dëgg dëgg ba affûté plume ba gën ko euh, nampatal ci littérature dafa am jàngalekat bu mag bu nekkoon Prytanée militaire bu tuddoon Charles Camara yàlla na ko yàlla xaare àjjana mu amoon fa benn journal du lycée boo xam ne Bougar ci boppam moo nekkoon le directeur le directeur euh, directeur de publication nga xam ne bu xale yi bindee ba pare yëpp dañ ko koy delloowaat waaye dañ ko da ko wóolu woon bàyyi ko muy jàng bind kon li xale yi war a jàpp mooy ci biir école yi nekk fa gi xëccoo ay néeg ak a xeex taxul ñuy wax école li tax ñuy école club de littérature club de sciences yi club EVF yooyu la vie scientifique la vie intellectuelle ci biir école yi loolu la ñu war a wat xale yi dem école waaye ci école mu am ay ay bibliothèques yoo xam ne dañuy dund bibliothèques yoo xam ne nit ñi dañ xale yi dañ fay jàngee mu am un environnement intellectuel dans les établissements loolu mooy wax ji mais ndax environnement boobu tey nam war a mel mel na ko ba gone yi war a mën a am ay ay le journal le festival des journaux lycéens kenn gisatu ko yooyu nag moom mooy jeexital bi gone yi xam ne ci am njàng mën nañ ci am teraanga ci am njàng mën nañ ci am lu nu bëgg ndax mbugaar ma nga France tey waaye bac la am dem jàngi def prépa dem école des hautes études des sciences sociales loolu moom moo may tay mu meuna bind euh, livre bi ginaaw nak 2017 bu mu la médaille euh, d'argent euh, aux Jeux de la francophonie. mais buñ jangaté manam maanaam jaar jaaru Bougar xam encadrement bu am d'abord ci kër ga parce que papa ji médecin la mu naa de mm. le fait que papa ji nek milieu social bi xamna ne na importance jang ba koy poussé muy def Scrabble da fay fortifier xelu xalé boole ci mu jaar camp militaire école militaire tout le prytanée militaire ñu ñëpp xam formation bi am foofu mucc ayib la est-ce que loolu warul pousse nit ñi ñu multiplier école d'excellence qui ci région yi ci mën former comme Jean bi am école scientifique bi am comme Maria Ba pour am fu région bi nekk département ñu école pour encadrer xale yi parce que bu encadrer wul nous euh, du am du ñu am résultat. waaw man gëm une école d'excellence gëm une classe d'excellence mais école de qualité là, gën pour man euh, l'accès démocratique à les à des écoles de qualité fu nit ki wara nek ci aduna bi ñun ñi ngay waxal man mi ngay waxal tay ak sama masque CLAD lañ jàngé méthode CLAD. Mm. booba bu ñu suba huit heures bu talé radio aduna adduna ay bokk lu ñu jàng niveau d'enseignement yi lañ wara maîtriser ba nga xamné gone dañuy bokk niveau. niveau bi baax ñu yëkëti niveau bi muy niveau de recrutement muy niveau de formation muy muy environnement intellectuel lu dëkk bi bu protéger dans des écoles d'excellence mais école d'excellence école de qualité. Mm. école de qualité environnement familial. environnement familial ci gone am ñetti nga koy jëndal ndax ay livre nga koy jëndal ndax ay ay ay ay ay pistolet nga koy jëndal ndax da nga bëgg mu nekk nit ku nite wala ndax da nga bëgg mu nit nekk nit ku am am koom donc ñetti paramètres yooyu nga wax yépp man ànd naa ci ak yow bu njëkk bi mooy ci biir kër gi xale biir néegam dafa war a am ay ay livre dafa war a am ay ay kaamil yu muy jàngee dafa war ay téere yu muy jàngee ak diine bu mënti doon war na teel a xam diineem war na teel a xam àdduna war na teel a ubbiku bu fekkonte ne day jëfandikoo téléphone tey jii di jëfandikoo euh, ordinateur ci biir néegam waajur bi war na ko mën a gunge ba xale bi mu orienté ko ci ay jeu yoo xam ne ay jeu de montage la boo koy jënd ay jeu intellectuel lay doon loolu nag responsabilité kër gi la bu génnee nag ki koy jàngal gis nga gone gi bu fekkente ne yow mi koy jàngal mosul a gis nga yor téere di lire bu sa devoir yaa ngi jël euh, écouteur di déglu musique gone gi musique lay déglu leneen lay déglu su fekkente ne nag gis na la yow kat bi foo toll yaa ngi liir gis waajuram muy liir journal loolu xale bi daf koy encourager mais environnement bu timit war nañ ci ñëwaat bu baax. Hmm.